ma nan la nit ki day wax ak yow nga bëgg koo wër déglu ma rek gis nga nit dangay nangu di juum nga man maa lay wax dëgg waaw ndax sa génn xasaw na sa doomu ndey la koy wax ma naa ñëw lii am am na pare ñëwal ma loolu moom du fi ñàkk ñoo gis moom wala ñaari nit ñoo gis ñun suñu kaa la ñuy waxtaane problème bi moom loolu kër gi xam nga kër gi noonu la fay demee problème bu amee danaan saa yi ku ne di ci wax waxee waaye man lu may réglé ma koy rek ndax man sama jom dama ko zirig naan ñëwal lii du fi yàgg problème ñetti fan lañ cee waxtaanee ñeenti fan ñëpp fàtte defal ni ma def laaloo nga ñëw lan mooy waaye lan mooy nday ngay toog sa kër noonu la defoo fa dara nag ndax ci ay ay fenêtre rek fu ne ngay fanaan ñëwal fii ah ñëwal bu ba ñëgee nag yaa ko yëg ñëwal indi sa bopp di la uppal sa taxi nga ñëw toog sa kër gi sëy sey sëy problème bi leen mu jàpp waaw na su dafa dëgër bopp waaye. bopp waaye yow da ngaa waane yow da ngaa bëgg a def ni moom wëri sa yaay nekk ca moom waaw fii du fi dugaat loolu du fi dugaat ah. yow parce que banaa la nga ñëw moo tax nga naan ñëw la kër naa bu dul woon sa doom ji ndaw ji yow doo fi dugg laa lay wax ne dama laa yërëm li ngeen def dafa ëpp dem ba marché di say ci tis bu yéen lu ngeen yàq yéen la la nit du goree di nen di ah yaa toog fi naan lu ngeen ñun ba liñ ñàkk bari na. lan lan ngeen ñàkk. ay waay ndaw Samba da ngaa bëgg ma lim. waaw ba benn yow da ngaa neex yow xamoo ko yow boobu ba tey ñu ngi toog di la muñal suñu morom ñi lii ñu am dañu dañoo jomm ñun. di sañse di def seen i cheveux yu baax di def seen i perruque ak brodé yu baax ñun soluñu defuñu dara lekkuñu naan ñu ku ñu gis bëgguñoo yërëm xoolal suñuy appartement yow loo ñu defal. loolu ñu defal loolu doo nga tax ñu risque dem sàcc na xew ma dañ doon dem amuñu lu ñu fa yóbbu su numéro yëpp duñ dawtal di taxaw si digg géew bi kii naan eh, di wa joxe ñaar fukki junni kii di wa joxe fanweeri junni ñun ñuy toog banque suñuy pour lan moo tax maag asu def loolu sàcc ko pour bëgg a dem eh, ndawtal très bien yéen ngi soog loolu du raison nag suñu jëkkër defaluñu bëgg nañoo dem xew amuñu tax ngeen sàcc ah yow lii boo ko teroon wax jàll de lii bu duggoon ci nopp bi noom nga jàll. jàll fa waaye dafa ndànk rek ay ba joxuñu bay deful ne suñu appartement moo tax ngeen dem di sàcc loolu du raison yéen ngeen wéeru sama kaw ni xëj lu ngeen lu ngeen def lu ma jàppale ah waaye dafa yéen yéen jigéen ña ne ci marché bi da leen gën lan moo leen teene jël naanaa sax jaay jël doomu xaal dagg def ci palaat jaay wàcc am sa téeméer xam ne yaa ko moom yaako liggéey ah bu bu dépense matul nga mottali boo xëy sax jënd ñaari mburu ñu xam ne affaire bi def ci sotti jare jàppalante la foofu la réew mi toll jàppalante foofu la toll yaa ngi dégg ah jigéen ñi ngi dem ci kii jënd jën ñëw jaayaat am ci dara a ah, bu leen xeeb dara ñaari saami kaani sax nga jaay xam ni yaa liggéey jàppale sa jëkkër waaye naan defal ñu moo tax dem ca marché ba sàcc loolu du raison te bu dul woon sa doom ji ni ko toppi nga naan dikkal ak ñëwal ni day gore te gis ngeen <laughs> eh du yéen rek de ah, te des na gis ngeen bu ngeen bàyyil xew yi ngeen yenu ah di ngeen def leneen ak leneen di ngeen dem kaso bari na fi ñu ngi ngénte ba pare xëy suba jot ko convocation ñu ngénte ba pare yendalatuñu naanatuñu xëy sax ñu taxaw ci géew bi joxalante xaalis bi jàllaañoo lu ne nii xëy di ñaan lu ko fi jar doom ju ne nee naa leen yaay ngénte sa bopp yaa koy indaale yàlla bi mu lay sàkk indiwoo fi dara boo dem doo yóbbu dara ku fi xaalis tax a yendu wala nga xam ni yaa ngi ci erreur dellu si leen wàcc leen hmm. loolu nag génne ko ci sa xel ay ba defaluñu nag fukki jigéen nag fi kenn defaloon te ñu ngi togg gore loolu laa bëgg nga wax man yoruma kenn dama leen takk waaye man ag yéen yëpp yàllaa ñu yor bu ma doon xëy di leen wañal ku nekk vingt laan demal marché taxul ma yor leen yàllaa leen yor lii ngeen da ngeen def erreur nga naan sàcc nga bëgg ko de naan defaloo ñu moo tax ñu dem def loolu. xew mi ñu tudde ah yéen borom xew ma borom xew ma day ngay nekk ci jàmm yéen ngeen nekk ci lan seen tur a ngi wëndeelu ah ndey caméra surveillance as soo ko jotali mu bokk ko. képp loolu loolu mooy. gis nañ fi lu nekk waaye day day dem léegi. waaw mu judduwaat fi ñu fàttali. waaw beneen cas bu jotee ñu ko rek. Ah, waaw loolu du raison. kii nag ba ko fa mu toog këram. fii du fi dugg voilà jeex na loolu am na ma lay wax. dañu jàmm a fi am cas bu eh, eh, eh, na jeex yow da ngaa toog fi dama ni du ma koy tondol tey dem bu dem ñëwaat loolu laa bëgg nga wax di nga gàddu sa liir bi dem kon fekk as. waaye léegi loo bëgg liir bi wëri sa ndey. xamu fu mu féete nga bëgg wala moom xamu fu mu féete xamu fi ne ban avion la jël sareet ndax moom tey mi ngi Burkina suba ma nga Guinée Bissau yaa ngi dégg li ma la wax boo xewul nag di nga ko gàddu sa doom ji boot mel ni daf di ko wër waaw waaw demal nga ni may ma sama baat man ngay ñaan baat waaw man ngay ñaan ba bu ñëw ba déet ba bu ñëw. ak caam déet waaw dama ni dama ni xam nga caam ak bu wóoruma jël benn décision seen ginnaaw waaye di nga xam. man la we moo gën a ndaw doo ma ko may. fi kenn du fi sàcc def sàcc métier man nga toog. fi kenn du fi def sàcc métier. yow may ñu suñu jàmm. voilà. ay ñu suñu jàmm. <laughs> li nga sëkkat sëkkat te wéroo ay pàcc pàcc. waaw yoo xam ne eh, eh, dañ lay buux ma tàkk. da nga maa tiital waaye kii mu tàkk moom nga jege. automatique yaa ngi ci demoo ci. yow ma ne ma ne booy laay la dama ne dañ koy kiriñ mu tàkk bu tàkkee saxaar si jóg. karna yeeg yëpp dee na waaye booboo la yor. automatique bi ba sëg mu dem mu fer boobu yoru la boobu yoru leen. la gis ngeen fi nouveau eh, nouveau modèle yaa ngi fi waaye karkaas bokku ci màggatum jinne ngi toujours mu jommal gone maa la wax lii saabu du fóot boppam ay bëgg sama yaay fekk lii mooy li xew ci kër gi yéen ñëpp yëg ngeen ko boobu léegi amul kenn ku ma ci toogal wax parce que li xew gàcceel na ma gàcceel na leen gàcceel na kër gi yëpp mais liñ def def nañ ko ba pare du lu ma rafetlu du lu ma ànd du lu ma apprécier mais bu ay nit nekkee ci tooxi doona naroo leen a jàllale sama warigar rek laa def dem taxaw leen ñu bàyyi leen yàlla nag moo ma ci jàppale mu mënoon a gën ñaaw te am na fu mu doon tollu waxtaan bi muy wax ak yéen dootu ko jar ndax bu boobaa ñëpp dinañ ci jot kër gi nag dafa am lu ñu baaxoo saa yu ñu xuloo ak lépp lu na xamal ci lu ñaaw wala ci lu bon ñu wax la ko ngir jëm la atteindre su ma sañoon du am seen sama dig seen diggante yéen ak sama jawari papa yi ndax seeni goro lañ benn ñaareel bi yaay lañ ci yéen ni sama yaay ji mel ci yéen sama yaay mi dégg ngeen ko li muy wax depuis boobu ba léegi moom lay wax ci problème bi te xam naa ni kenn du ko dégg mu wax ci problème bi du doon ci Ndeye Ndiaye du doon ci Astou léen nag loolu laay xaar ci yéen bu am mukk problème ak ñoom ba yëkkati ko loolu rek laa leen loolu mooy dëgg sax bu ndax man àddina loo fi gis sutura yàlla ci boppam moo njëkk a bëgg sutura njëkk a suturaal doomu aadama li nag erreur la rek ci ñoom xëy na mënoon naa dal kenn ku ne comme ci ñoom la dal na mel na ci ñun la dal rek kenn ku ne mm. nañ ko suturaal nañ foofi gas suul bu leen leen ko xoole bu leen leen ko sànnee ay tract bu leen leen ko gaaruwaale. surtout surtout loolu. surtout gaaruwaale waaw. def leen ni bu doon man naa ko def dañ ko fi gas yamale ko fi mu jeex fi tey na mel ni mos fee jaar loolu rek laa leen di ñaan yàlla. bàjje bu man de man la rek. Hmm. na seen xel dal xam nga man affaire histoire dara laa ci waxul waxuma nag romb di gaaral waate waaye nag dafa am loo xamante ne yaakaar naa ne buñ dee wax dañu war a maas noonu gi pour ñëpp. Mhm. parce que boo nee dañu war a suturaal Ndeye Ndiaye ak Asu daf da nga war a wax ni waa kër gi dañu war a suturaalante mhm. mais kër gi kenn du suturaal sa moroom xam nga ñoom tey suturaal nañ leen mais tey daree lenn bu doon man la wala muy sa yaay ji toog wala muy um wala muy kinne kon instant bi nii yaakaar naa ne presque en ligne bi ñëpp jot nañ ci hmm. ñoom duñu suturaal kenn donc yaakaar naa ne ñoom jotaay bii dañ ko waroon a fekkee nga teg leen Ndeye Ndiaye bi fi nekk nga teg ko mu toog mu xam lii ci sutura mais ñoo xamante ne luñ la xamal amuñu bàmmeelu biir dañu mel ne tamit lu ñëw jàll duñu tee dara man moom bu dee mën na na sa xol sedd ndax man yaakaar naa histoire u jàmbur man problème bu jàmbur du ci dugg. waaye nag yaay booy moom nit ki li mu gën a nit bu sangu du ko sumi dëgg la da leen koy tanee rek. Mm. bu ñu melee noonu seen jikko la yal na leen yàlla soppi ñoo nga bañ leen a topp ci loolu. c'est ça waaw lu mu turalante rek. mooy sa bopp xam yow li ngay def. jeex hmm? ma ne ko fekkoon moom la. Ndeye Ndiaye. Hmm. bu doon moom lii. Hmm. man maa sàcc. Hmm. walla yow nga sàcc. wala naa sàcc. kon heure bii mi ngi ñuy woo par benn benn di ñu kaa di décortiquer. gis na bu ñu la fayee sa nga mer la nga leble moo neexul ñëpp xam na ne moom mooy kàkkatu kër gi moom ngay jël sa mbuus dugal ko sa néeg mu wax la mbuus bi fu mu jóge lu ci ne ak li ci naar il est temps nag moom ñu fay ko borom ba mu xam ni. kaa wax waxu jàmbur baaxul. dañ koo war a fay borom ba mu neex. yaay sën xam nga lan la li bu man na kon heure bii koñ bi fees na dell taaj ngeen ma di ma taaj ci ruq yi di ma taaj ci mbedd yi ñàkk maa considéré ci kër gi moo tax man maa ko mujjee yëg parce que xam ngeen ni su ma ko yëgee ngeen koy nëpp nëppal du leen neex ndax mu fii kenn musuma fee nëpp nëppal kenn musu fee nëpp nëppal Amina kenn musu fee nëpp nëppal kenn kii nag moom du ma ne daa faible ndax sama borom kër la waaye fi nga jël sa jabari bàyyi considéré leen boo defoon noonu sa jabari ñun dinañ gën a mën a nekk ci kër gi nekkin gu neex. wax nga ma kenn du ko fi nëbbal dañ koy taaj ci digg kër gi. Eh, gis nga yow um, lii du débat politique ba ku ne am sa kàddu di wax te sa borom kër laa ni ma ko nekkee ci Amina. li ma bëgg laa leen wax pour ngeen defal ma ko defal leen ma loolu lu ma sàmba mel ma demb ak Fat Bintoog Mati Njaay ak yooyu man sama yoon nekku ci xam nga da laa bëgg problème bi bëgguma leen dégg ngeen wax ci parce que gis nga euh, bu njëkk bi c'est la mais après ça sera le bâton en fait te bu may wax ak yow dama bëgg nga xool ma yaa ngi dégg li ma bëgg mooy lii bëgguma la dégg nga ŋaan ci muy yow muy keneen képp ku ma am dogal ci yow lii ma tere ma xëy dégg ko mu am ça ne sera pas sans conséquence loolu nag laa am ci lu ma ci wax voilà. Mm. Mm. lu maa la sañ ñaan di la ñaan bàyyi noonu mu sedd bu leen topp bu fi nekk naan dangay kaag dangay toppante ak nangam ak yooyu bu dugg ci yooyu détail ko jarul sax ko fi jar. jaar na ko dëgg dafa sàcc ku sàcc ñu weer la. ku la poobar yow day am dañ koy weer fii keneen ku fi def dara Ndeye Ndiaye weer na la ci kër gi dafa sàcc dañ koy weer dañ koy fay borom ba mu neex léegi weerante ba kañ léegi lan la lay jariñ yow man profit nga ci tiire lan fu ñu ko tuddee tudd la ndax yéen a bokk benn kër gi man umu mënuma la comprendre quoi kañ ngay changé mënuma la comprendre yow bi ma la wooyee nga yolo solo si ñëw ak say xonq laa xam ne ñaxtoo la andi da ngay kaas ci la fekk ma nag ñu jote man ak yow ci kaaw Ndeye Ndiaye. kon de defal ma li ma bëgg. kay bëggoon ñu jote defal ma li nga lool xanaa. Ah, seen kër gi nag jaxasoo na waaw ndax kër bu demee ba jigéen ñi sàcc dépasse mm. jóge sàcc dépasse dem di sàcc ca marché ba mm-hmm. ah, leneen dina fi xew te na kër gi nii buñ cooxulee fii ci kanam tuuti di léegi dinañ dóorante ay balu pistolet mhm. ndax ku ne yaa ngi seet sa moroom noo ko mënee def lu ñaaw pour yaakaar ni dégg nga maam kër gi diwoo ko moom pour nga mën ko donn ak yooyu léegi nag man jàmbur laa rek la laa woon ci kër gi boo nekkee ci kër ba gis kër gi jaxasoo mhm. da ngay dem sa yoon man daal dama fee bëggoon gëj fii ak ay fan ba kër gi rek le bu ma mënee ñëw ñëw bu ma mën ñëw ma seet fu ma taxawaalu rek ba nuñ gisee ndax fii damay bañ lii xew war a xew li ma gis nii ci baatin mu war a ñëw ci biir kër gi buy ñëw fekk ma fi ñu ne sëriñ xol loo fi doon defal kër gi lu soyoo nag jaxas man man man damaa damaa weex dunk dan maa gaaw a jiiñ te lii fi xew nag xam ngeen ni sama yoon nekku ca waaye fii mu jëm neexul kon nag loolu laa di mu xamoon dama leen koy wax ni bu leen ma gisulee jaru ngeen di jaaxle yaakaar damaa feebar dara jotu ma waaw mën a fa bëri bëri it kër a kër a waaw waaw bu daan rawee da ngay reculer pour avoir force ah. léegi nag dama bëggoon reculer rek ba ba lépp sedd ma ñëwaat dégg nga loolu daal moo doon waxtaan wi <laughs> ngeen bañ ko jàppee dara ah. man wax bëgguma waxul léebu léebu waaw mooy man je suis direct man mii da indirect wu ma ne hmm? ah bëgg nga wax ma ñu leer waaw ah. ndax kër gi dafa am ku fi am jëkkër am far wala lan ah loolu de man sama yoon nekk bu ma dugal de. ah sama gémmiñ déggoo ci am jëkkër am far sàcc bi fi siiw daal laa wax. mais mais tojal yax bi. man amuma yax bu ma toj yoruma martu bay toj ay yax lii nga xamante ni gis nga ko gis naa ko kii gis na ko. Mm. loolu daal laay réclamé ah sàcc bi xewoo. dara leen fi gis ma xaw ma la xaw mm. sàcc bi ci kër gi xamoo ko waaw Thiam je m'excuse mm. gis nga jëmm ji seytaane la fi mista la. ak saa yàkkoon. xam nga lu tax. Amina. Mm-hmm. ba muy jël fàtt ki ne di ko bëgg sëriñ. Mm-hmm. moom mi ngi ko boole sëriñ bi. lépp lu mu def. Mhm. moom mii la. Mhm. kii saay saay la bu mag sax. si tu ne vaux rien. je suis mhm. tu tu tu tu tu tu es un voleur de confiance voleur de xel. yaa ngi dégg. Binta nag dinaa ko woo Binta Samb dinaa ko woo. waaw bis bu ma ko woo ba mu tëpp ci kër gii. dinaa gàddu loxoom. ga sa loxo yooyu ñu ànd. Ah, waaw waaw ñu dem ba ca kan la nga def. waaw nga dindi ci ko. wala nga xam nooy def sinon kaso nga jëm. waaw jërëjëf wax nag dafay set leer. Euh, Amina dafa ma laaj ndax yaa ngi yëngu ci mbiri sëriñ ma ne ko waaw déglu rek bi mu ne maa waaw ma ne ko xam naa sëriñ Mamadou Lamine Daraame borom bëy ya te bi ma defee investigation lu ñaaw lii sëriñ boobu du ko def billaahi wallaahi wa taala ak sama kurus gi dafa dem ca susu ya xaw ma ñoo ñu di def jalaa yi la dem ñoo def ndaw si lii man nag laaj na ma ni ma ko am nga sëriñ ma ne ko am naa sëriñ waaye sëriñ ba ma ko digal demu ca ca keneen la dem lii moom xam naa ko ca ndax man dama defe ni woon sax bu demee la ma naroon am ci sëriñ bénéfice ba ñu bokk waaye daf ma sëriñ bi daf ko mujj delloo xaalis bi naa dem ca beneen sëriñ ay ay kilifa laa ak jàpp du ma yor ragalal yàlla yàlla ragal koo tax ragalal yàlla ma yor kurus euh, xool yow may ma ma ñëw caam pareegu ma ndax xamul mm-hmm. tax yow bu demee ci sëriñ ko ci boppam ndax gis nga fi mu jaare wax ji man bu sama jëkkër la defal ndànk defal ndànk rek defal ndànk rek yow da ngay mag moo xam chaque jour ñu taaj la yow it Amina bu jëlee xelam mi def ko sëriñ yaa ko ci dugal yéen mën leen a bàyyi nit ñi ngeen di boole ak sëriñ waaw Amina bu ne maa dama bëgg sama jëkkër bëgg ma du ma ko seetal sëriñ bu baax déglul li muy téye jëkkëram war nga koo mën a digal ginaar gu neex togg gu neex ba loolu sama yoon nag togg ba mu neex da ko jox jëkkëram dag may déglu tey déglu naa la nag waaw damay wax yaa ngi dégg yéen a jël seen seen seen bopp yi boole ko bopp xale yi jaxase xelu xale yi yéen gis ngeen li xew ci réew mi ñi ngi gas di suul ñi ngi rey nit ñi yenn saa nga jox nopp boo xam sa jëkkër sax nopp bu fanaan la mooy bi bu metti amee intoxication de de la femme jaare fa dee ah defal ndànk <laughs> man binoom nopp ma ko de eh. man damay togg lu neex di ko teg muy lekk ba suur eh, may sañ sama jeg di ko taaja palaam yu baax hmm. waaw mais di ngeen jël seen bopp yi def jël xale yi def nañ sëriñ yi xale yi léegi lépp lu ñu def te boo luñ ci sëriñ nag dañ naan lii lu dox hmm. te yàllaa yor ñëpp pikin de toj na ah! moom pikin bu tojee yow ca ñoo ko toj ci la bokk sole mi bàjjen na ma toog nga kii ah, mu sol mm-hmm. mbaxanam xonk mi mu sol mm-hmm. daa am yu bari lu may fàttali yow waaw te lii nit su ko solee ah. dafa war a am sutura bàyyi ko rek hmm. nee fii ah mm-hmm. dem nga ci armeel tëdd ci waaw yooyu xumbal la woon rek. waxoon nga ma ko waaw baax na. barki njaay li laa gis ñu sulli ay armeel def ci. ah waaw ay bopp gay lu ne. waaw ci néew ci néew. waaw ah, gis nga loolu liggéey. ah wax nag bal la boo xasee ba génn sa gémmiñ doo xam fu muy. te moom taw na fi wax ma ko. mi ngi nii normalement gis nga kii dañ ko waroon jël yóbbu. fan la ñu yóbbu dañ ko teg gannaaw jël yóbbu. léegi nag non déglu ma rek yow. léegi nag xam lu xam lu luy am damay woote réunion ci kër gi ñëpp laay woo. waaw waaw looy eh, eh, na ñëpp na nga ni sëlmoo gu ma. <laughs> waaw yow fii looy foofu woote dama woote réunion. ban réunion koy yow coow li am lépp. dara amu fi da dinañ ko lëggante entre nous ñun ñëpp déedéet entre nous du fi am kii dafa dëgër bopp yow tie teratotil yow xam nañu ko wax ci français lan ngay woote gi ni mu la ba jooy boo wootee réunion nit ñi xeex responsabilité kan lay doon su sa waxi morom ñun dañ doon waxtaan waxtaan wi kay ku nan ko téye rek ñun daa waaw loo cay woote réunion ah, ni chef de quartier ñu téye ko la la la duñ ko génne ci mbedd mi lan lan lay fi sutura léegi ah waxoo fi sutura am ah boo ma ko jàngalee kay. maam ko xonk ah mooy jàngaloo ko léegi ah waaw. mais léegi xool kon del maandu. jeex na maandu xool del def lu baax. maandu naa waa jërëjëf. xool del dugg ci lu baax. maandu naa xool bàyyi nit ñi nga yóbbu ci ay sëriñ. sama rawaan yi ñooy wàcc. nii laa mel ni wàcc dañuy dem heure bee jot ah waaw. <laughs> gis nga ma wax la benn affaire gis nga it armeel Pikine dafa xew. genn wàll gi yëpp maa ko fa suul. yow mii dégg nga dégg nga moo xaat la ko xaalis xaalis fi ñu toll pikin soo demee xale yëpp si meeku noonu ba set ña dofoon wér nañ mbër ya yàmbaroon amaat nañ doole ñu leen a suul nit buñ la yeewee ba nga dëgër suul la ci bàmmeel dootoo jóg loo xam ne loo rafetul caam am na loo xam ne dañ ko génn mu mel ni nit noonu la dafa mel ni nit yow mii mos naa la faa suul waaw ah, man dafa man de maa ngi ni far <laughs> xool est-ce que yow loolu xool nga si yàlla bu nga koy def déedéet xaalis laa xooloon xalaat nga ne yow suba dañ la la suul foofu man damay deekee ah? man damay dee armée bi nañ lay suul man fenn fu fu ma suul baax man nga boo dee wun la suul baax na nit moom du dee di wax suul leen ma fii man ma sooleen suul suuloon seen buntu kër gi tabax ko sax nit ñi di fi toog def ko ban garaawul yaa amul problème waaw man moom garaawul man dee ak dund moom garaawul man xam naa ni kullu nafsin saalixatin mawti yàllaa ko wax ci alxuraan ku dund di nga dee xamuñ nag lan la fay fekk maa defoon ay musiba léegi musiba yi xam naa ni maa ko def reconnaître naa ko damaa jëf alhamdulilah rabbil alamin ah da dem hmm? Hmm? da ngay ma dem dama mm. ah, màndu merci mm. Pikine de moom sant nañ yàlla moom naa ne moom wax dëgg yàlla yàlla moo mën a weeraate ah mm. am problème kon jaam waaw kon baax na man ko jaar mooma di socc jërëjëf yàlla na la yàlla fay illaa xilla lii du man day njaay yu mënul nekk dëgg. yow dama ñor nag nañ ma téléphone bi xat yow xadi dama ñor xaw na maa rey téléphone bi dama ñor bu muur heure sa yaay jooju nga jël ko ndeyale ko sa bopp bàyyi ma yaa bon dama ñor war na maa lu ma yokk la koo fàtte tey. xadi baaba man tey waxuma waxi taada ba. waaw xadi baaba Ndeye Ndiaye ak Astou lañ dugg si tiktok bi ñuy sàcc. kon yow loolu yaa ngi koy yaa ngi koy doog a yëg nekk. yow lii dama ndax yaa ngi ciy doog teg sa bët. waxat baaba ñi lan moo leen jaral li ah àddina. te bëgg àddina te yoroo gis nga nit dangay ngay yemale sa bëgg-bëgg wax ji nag boo tegul woon man fi mu toll nii ñu ko yëg ñëpp tiktok bi dañu ko yëgee waaye ku ñëw laaj mi ma wax la moo ko gisul woon duma la ko wax ñoo ngi nii nag mën a topp kaa lu ne ñu wax ko lu ñu lijjanti ko ku am sa mbóot ñoom ñoo koy tasaare ci biti tey jii nag seen bu ne nga ngi nii te mënuñu ci dara te gis nga xadi dëkk bi dafa yàqu marché la fa am amul fenn te ñun su suñu moroomu jigéen ñi ñun ñun ñoo ñuy daaneel ndax dangay chargé sa palaas ba mu fees dell nga ñëw teg ñu roppat la di la sàcc neexul ci xol te xamuñu loo def ba am xaalis bi ñoom lijjantiwuñu ndax dangaa leb banque wala dangaa leb chargé sa place lii nag moom doy na leçon ci ñoom ñii te borom place bi nag neen du leen bàyyi de ñaan naa ko njekk ba sonn nee na ma xadi baaba dañ maa yàgg a sàcc ki ma mujjee sàcc desneer la ma sàcc may jooy loolu pareegu ma ñaar ñi ñëw waroon nañ maaru sa sàcc ak ni ma mel ak ñoom teraanga bu leen defal na leen ko ndekete ñoom lañ fay dem yépp ñi xool bitig bi nuñ ko sàccee loolu rafet na est-ce que rafet na ma ne xaw ma lan laa war a wax man waxuma loolu xadi baaba ñoom bi ñuy jël lii xalaatuñ ne boutique bi am na caméra de surveillance xalaatuñu ko woon xalaatuñu ko woon naka lañuy daagoo si kër gi léegi ñoom bu ñu ñëwee naka rek la ñuy dundee seen ngor may na leen ñuy daagu fii nii ci biir kër gi waaye yow xam na ni yow ñi dañoo lu gàtt moom li mel ni chinois moom lu mu dugg mën na caa xam nga ne asu amul xel ndey njaay koy dugal ba mu dugg mu rocceeku ndànk ba ko fa anamu tey duma nga nee daa ñëwagum ndey njaay nga ko dëj fu mu jugul te moo ngi nii moo ko ëpp laa mel ni ci kër gi toog man nag wax dong laa mën mënuma leneen sàcc lañu war a ba kuranjoon nduq jéegi nekk fee marché boo ñëwee léegi nee moom caméra la jël te ko ci palaasam dañuy sàcc fer sàcc cuuraay par yenn saa yi ñu roppati mante boobu laxasaale waaye yow loolu pour lan yow li nga xamante ni boo ñaanee nit ki sax mu may la boo amul ne diw aw ma may ma dalay may sàcc moo war a jug senegal Ndeye Ndiaye mi ci topp ka waa moom nan la nar a réglé gaawam bi. man loolu rek laay laaj. laaj ko ko booy sa tante ko ko bu laaj ko ko. Ah! wuy ma sa bitig ba nag bu yeboo caméra kii yooyu man damaa gént sax caméra yooyu nga xamante ni ci kii bi lañ koy def boo laalee loke loke buntu yi daa mel ni caméra yi foofu lañ koy def dangay toog rek mu jël lépp. li ngaa jël yooyu xadi bu ndaw def ci dëkk bi toj na de man fi mu toll nii mënatumaa dem gendarmerie mënatumaa dem police. mënatumaa dem tribunal sonn naa man sama place bee lépp caméra laa ci def toog jàpp sama jàpp léegi na par yenn saa xam nga lu ñu dañuy def kagun solo kooku noo koy gisee foo koy toppee moom daal yàlla muy sàmm daal moo ñu mën a sàmm fi mu toll nii wax dëgg ne yàlla ndax téeméeri caméra boo ko defee bu ñu la bëggee sàcc dinañ la sàcc mun nag damaa bëgg a woon waxuma dara de sàcc war na leen sàcc waaye yow. yàlla baax danga ma bëgg a fen loo wala lan. man loo may laajee lu ma xamul doo leen ko laaj ñoom. ba nga dem nga leen tànn day njaay tànn astu yéen sàcc ndax war na leen. boobaa di nga dégg luy tàkk te du fay yaa gën a yow moom man ma ban façon ko rek. ndama ñoon nag moom xam nga boole naa la moom faale woo ma maa koy lijjanti ci ma pare léegi ci dama ñoon laajal. man yow dama koo waxul bari nga problème torop. yaa ma ëpp li mu ñeme man ñeme mu ko man mii séy ak moom dama koy moytu. Hmm. gis nga mës naa jotee ak moom ci néeg bi bi ma poñee ba ba bo ma. da lay rey de damaa négocier. Hmm. nu ma génn néeg bi. est-ce que xam nga moom euh, bëre la doon def. mooy jigéen ñi daan bëre. taekwondo. bëre la daan def lii jàpp botti moo tax mu bari doole noonu moom moom moom asu. yaa ngi dégg man su ngeen àndee toujours loolu laay tiit. Hmm. ay yii ak kii kii moom mais mu dóor la dammale laa doon tiit. dina commencé def de. xam nga li ma la wax waaw léegi nag yow yaay nekk yi nekk sama gum bopp kii. waaw waaw dégg naa nag xam nga li lay woon ni moo def lépp ma nga seen kër. lu tax kii jubal si fii moom mu toog fa. Ah, ba ko foofu bu ko jëlee. man jëliwuma kenn bu ko jëlee kenn laa jëliwul. bàyyi ko voilà. yow xamul la dal day da nga am yërmande. non tournons la page. waaw amul tournons la page non le passé c'est le passé. c'est le passé c'est le passé eh, passé wu fi de. mais lii destin la rek yàlla ne woon. dinañ am jaar-jaar bi bu leen kii déglu rek on tourne la page man maa ngi ci leneen fi mu toll. waaw waaw léegi de xam nga lu tax mënuñoo tourner page. Hmm. wax ji ci bitee ñu metti kuñ tunne jabaru bàyyi ña nga ne ndey sàcc ndey sàcc yow sàcc nga fi bëccëg na kam non non non déglu rek fii ku ne am na fi riir ah, riir bi na fi féetewu ci yow a féetewu ci fi fond de teint yow sa xaalis doom yow amul problème la ba ma jëloon sama fukki million wu doom ah, ci kër gi la kii fond de teint yow ca marché ba ni wàng waaw weeje sa bopp waxatuñu nga ah, loolu yooyu yow mbaa da ngay a roode ci sàcc gi mm-hmm. kon déet a roode kon sàcc gi jonge weesu ah, ah, ba ba kii dafa yow dañoo te naan ba jonge ci xelu nit ñi neen dafa jonge ba jonge ci xelu nit ñi fekk ci nul jàmbur di bax nga doon ginaar ah. dikk ne cabax ci biir ci ne damaa war a ñor tey li ma gën a met li ñuy wax ci mbedd bi ay ndey caméra surveillance ndey wax waaw waaw ah loolu tax ma lay wax nga lan la yow da ngay daanu wala du la man lan la bu yére yi day gudd melentaan yi yéen da ngeen a mën a eh, ah, da ngeen a mën sol yu gudd. Ah, lu koy mat lu koy mat. Ah, yow bari nga ay defal defal eh! da ngaa ndoxum siti defal ndax looy wokkatu sama xaalis. salal sama ñaari junni yi ma yoroon léegi moo mat. foo ko yoroon wala fi nga toog. fii de kenn fii laa toog waaye yow defal nii fëggatul. waa déet fii moom amul suuf amul bagage. defal ndànk rek defal ndànk xoolal xam nga lan la déglul ba waaw ba. waaw tàgg boo gis am na jàppal diw. waaw man mënuma ma sama ñaari junni léegi mu bëgg fee dem. waaye yow ku la jege. Eh, dafa yaa ngi ree sa musiba. da ngaa yor poche génn sama ñaari junni. ah ah Ndeye Ndiaye génn ñaari junni réew ma de. da man defuma de. ay waay sa sàcc kooku da nga koy mën a maase def ma sama xaalis. man daal maay APS man. man maay APS xam nga yaay fan. dama ah, sama ñaari junni. Eh. yow man ngay sa ko sàcc yow yaa sax yow bàjjal de wala eh, bàjjal la mer la la eh, dama laa la sa mokk la wala sa léegi da ngay fay wala nga fay ma yow ah, lan la ah, eh, jaar naa teer la ñu fay eh way ba ma eh may ma la la mer la paix jaar naa teer la ku jug dama la sama xaalis yaa ko sàcc waa fii du marché moo eh eh sama ma ko dama lay laaj dama laaj yow laajuma la yow fu mu seet yow lii nga fas lan la lan lii lan la lii laa lan la kay ah. ok ok. ay ah, lii la. baax eh lii la. déet wi wuy ma lii la. déet bi eh man la eh aajowul xotti yi rek mu ne bul xo bu la neexee sax xotti sa sër lii lii lan la yow it lii ñaaw na. yow e fu la fekk yaa ko yaa ko yow la ko doon laaj jox ko am jox ko déet am jox ko nee na am jox ko rek jox ko. ba bul ma toll. mooy bàyyi sa jooy yi bàyyi sa jooy yi da ngaa bëggoon mu doublé nekk vingt mille waaye xam nga ne sa ñaari junne ngay yow teel. di baal ma waaw teel rek waaw teel teel rek. na na jël cinq jox ma cinq mille. déedéet teel sa ñaari junne nga ko ci sa sees teel foofu yow neel bàtt rek yàlla tey ji xale bu góor yàgg ngaa def lii ci kër gi de du tey. yàgg ngaa ji ñaate e jógal jógal man man defet man sax